actualité ñu fas waxtane gaay nak def leen ben découverte est-ce que xamone ngeen ne kii mooy doomu donc Mamadou Niang boy bi nak moy nolan Bonte wala bonté dinañ ci ñëw indi leen ci ay leeral ak nak li nga xam nak moy jëm ci boy bi lan moy posé ak lan lay daal di football mais d'abord gaay yi ñi nga xam dañuy suivre NBA bu len bàyyi gaay bu len faté suivre li nga xam ne All Star Game parce que également ci All Star Game à la mi-temps dañuy décorer ki nga xam donc LeBron James pour devenu aujourd'hui le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA ngeen gis ko ci nataal bi moo Karim Abdul Jabbar mais aussi gars yi ki nga xam ne nag moom laa laajte mooy kii kàlla li mu a wax mooy que ne jël na retraite internationale jël na retraite il a mis fin à sa carrière sax laay wax moo ngoog kii kàlla gars yi donc laa leen di laaj donc tey kii kàlla donc équipe bi mu doon joué nag gars yi yomb naa xam donc mais tey mu may nekk question bi sànq nag gars yi gars yi réponse bien entendu xam nga ko Jude Bellingham 19 ans la amoon bien entendu mais également gars yi ki nga xam ne mooy donc kii di donc euh, Rafael Varane tey lay joué 50e match avec les Mancuniens donc Manchester United jamono match mi ngi dox diggante Manchester ak FC Barcelone waa Qatar nag tey dañoo def benn euh, sortie benn donc publication lañ def wane rek drapeau Manchester United est-ce que dañoo jënd Manchester United ou pas en tout cas gars yi commencé nañu wax mais daal waa daal ñoo def poste bi. gars yi nag ngi ci wax am naak amul def nañ ko deful on verra bien entendu alerte rouge pour Galtier Galtier nak actuellement wa Paris Saint-Germain dañ ko jox ba le 8 mars 8 mars mom gars bu fekkee Paris Saint-Germain qualifié wul euh, également soriwul ci nga xam nak moy donc Ligue des champions bi ni lolu nak ak aussi championnat Galtier mo dañ koy dàq ñu ngi wax sax naan est-ce que kenn du ñëw ki wara a ñëw nag après na leen ci jox ay xalaat dinañ xawa a hein mais gars dal né nañ peut-être moom moy ñëw mais aussi Neymar même bu fekkee né nañ Paris Saint-Germain dañoo refroidir piste boobu wa Chelsea ba légui ngi koy gëm pour dali di recruter nga xam moy donc euh, l'attaquant brésilien Neymar bi nga xam boobu ñëwee Paris Saint-Germain ba léegi de da ngay doy waar quoi Neymar da ngay doy waar mais aussi ki nga xam Pierre-Emerick Aubameyang ki nga xam ne nag donc grand poteau nee na impossible xalaatul ben yoon bay Aubameyang mu dem jamono ji parce que aussi joueur clé la lolo wax joueur clé bo xam du jouer Chelsea nak sincèrement jënd nañu ay joueurs yu bari ku ci melni Datro Fofana et tout mais do leen sax gis ñu jouer Cucurella mi nga xamné nak gaay gars yi moom ba mu signé Chelsea dañu ko doon daal di cambriolé démb nag ay également donc gaay yi fani dal daal dañ moom dañuy singili quoi sincèrement dañ ko singale ko c'est un bon joueur mais aussi Chelsea ñëw fa adapté wu légui ak situation bu ñu nekk dafa xawa metti lol lol mais aussi motax ki nga moy Mason Mount Mason Mount d'al jamono ji dal mom néna Mount man fresh am bi dal bi nga xam moy Mount fresh bi koy tax mu signé contrat am avec Chelsea néna mom dal du ci wax gum ni prolongation de contrat lañ koy wax mais mom d'al ba légui yewu ci tàbbi ci est-ce que day bàyyi ba saison bi jeex ak aussi recrue yu en tout cas Mount moom loogut dara ki xam ne nag mooy donc Christensen actuellement jéewul tey gars yi dañu ne problème de blessure la et tout et tout problème physique la entourage am nag génn nañ ne nañ amul benn problème amul benn problème physique problème tactique ay mën nañ ko wax wala pour des raisons techniques et tout mais bu dee problème physique moom amul benn problème physique bu ñu kenn dugal Ilkay Gundogan moom it nee nañ agent wam ak waa Barcelone dinañ waxtaan ci semaine bii nii loolu la gars yi wax parce que moom it bu moom il est presque en fin de contrat du côté de Manchester City euh, ñii di waa Barça intéressé nañ ci moom et Gundogan également nee na moom dafa bëgg changer air de même que Bernardo Silva aussi ñu ngi ko si daal di tudd kii nag di Marcus Rashford gars depuis 2023 bi commencé ba léegi ak gars saison bi mu tàmbale woon ak léegi xooleen statistiques yi ni mu amee euh, différence pour Marcus Rashford gars yi gis nañ avant c'était 0,51 de marqué de but maintenant c'est plus d'un pour cent de marqué début donc Rashford il est au top de sa forme 39 32 matchs 30 buts donc fanweer ak ñaari match fanweeri but pour ki nga xam ne mooy donc Erling bro Alon gars yi tuddee ko cyborg bi cyborg na gars yi mi ngi toj Premier League instant yi moom mi ngi toj Premier League ñëpp daal d'accord nañ aw yéen mooy moom ki nga xam ne Nusayr Mazraoui le joueur défenseur de des Lions de l'Atlas également du Bayern de Munich moom reprendre na tey nga xam mooy tàggatoom i ngi entraînement carrément commencé waat ñëw mais aussi la bonne nouvelle gars yi naa leen ko jox après mais aussi avant bien entendu avant muy reprendre moom it entraînement yi tey wax naa leen ko sànq joxoon naa leen ko en exclusivité Sadio Kaiser magnifique Mané dafa demoon ca campus bu Bayern Dominique Munich xool booy waxtaan ak ñoom moom wax naa lan moo fa ji lan la fa wax jox leen détail parce que nous on vous donne tous les détails en temps et en heure kuy ñëw nag après yaa xam mais comme on dit on vous donne les bonnes informations gis ngeen ko ci natal bi ak boy mais après Sadio Kaiser magnifique maa ne comme jantal ah jantal Sadio Sadio magnifique man football Bambali Sénégal champion d'Afrique euh, Ballon d'or moom mi ngi nii dellu nag ak ki nga mooy loolu watoogut danaan gars yi bañ bàyyi tepp tepp gun yu rek defarul coiffure bi tout nii la demee entraînement Sadio Kaiser magnifique mané ne qui na gaay mooy Nolan Bont wala Nolan Bonté Boy bii nag mi ngi joué lance, lance n'a bu ñu ko waxee ay sénégalais bëri jaar nañ fa un certain El Hadj Ousseynou Diouf jaar na fa ah, kii di Pape Sarr jaar mais aussi ndem si à Pape Bouba Diop jaar mais également que dire de qui di Ferdinand Coly moi domu mooy doomu kii di Mamadou Niang boy bi ah, milieu offensif la mais boy bi il est capable de jouer à droite maanaam mën jouer à droite mën jouer à gauche mën jouer comme deuxième attaquant mën jouer comme point. boy bu football la moom nak doomu Mamadou Niang la donc Mamadou Niang la star de l'équipe nationale nationale du Sénégal Ben moment mais aussi le capitaine emblématique donc de l'Olympique de Marseille moom nag bi donc il a la possibilité de jouer pour le Sénégal Nolan Bonté donc dama leen ko jox information ñu ko donc c'est l'enfant caché de Mamadou Niang am na ñu naan nag lu tax mu tudd ñu ñu mën a laaj plutôt Bonté Santé Bonté lo nag gars yi du ma ci dugg loolu daal laa mën leen jox information gars yi woy leen like woy leen abonné on avance ensemble dans la magie de eSport TV gars Ya ja, ngeen jëf.